bis bu nekk wala jamono bu nekk am na ay xar baax yu ñu ko jagleel bis bi ñuy waajal nag xar baax yi ñu ko jagleel mooy ku ko fanaanee màggal ba asamaan set sa aram manaa nga set ay set ci ay bàkkaar kon loolu doy na sëkk wala jar na lool ni Cheikh Moustapha waxoon bu bis bi dikkee nit defut lu gën a am njariñ wala lu lu gën a am yitte fanaan si Tuubaa ndax gannaaw boo fi fanaanee fanaan ko dundale noonu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 mooy li suñ borom dogal nga nangu ko maanaam muy màggal gii nga xam ne mooy màggal musulmaan xaram Seex Xaadim ñibbisi ci santaane ko daa bokk ci bis yi nga xam ni suñu borom moo ko war maal màggal ko kon nag ku bëgg amub cër da ngay nangu da nangu lii yàlla màggal nga màggal ko li yàlla fonkit nga fonk ko boo bëgg yàgg kon loolu day dañ ko ci mën a déggee lu yàlla wormaal ku ko wormaal jiitu kuy gotti wàllu kuy gotti waaye yàlla léegi jiitu léegi juutu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 yalla yàlla may ñu gën koo déggee noonu waaye ban ko toppee noonu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.